voilà tey Baye Hassan, nous ngi gis le conseil des ministres. oui Le conseil des ministres bi. Mhm. Mhm. est euh, sénégalais de l'extérieur. sénégalais yi nga xamante ne ñu nga nekk ca bitim réew te yenn saa yi ñu am ay jafe-jafe lu jëm ci seen i këyit euh, nga wax ma rek euh, ki nga xamante ne moo di njiital réew mi yan mesure la bëgg ñu jël ko ci boobu taxawaay mais waaye yow yàlla na nga yokk waay waaye yow li nga laaj neex na waaye yàlla na nga yàlla na nga dund ba sëtaati tal ko amiin waay <laughs> ñun ñëpp barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teraanga yu yaatu ak jik ak jik hmm? euh, dafa am benn phrase boo mhm. xam ni ci conseil des ministres démb dafa retenir sama attention mhm. Euh, la nouvelle politique de gestion et d'accompagnement des Sénégalais de l'extérieur. Mm. Le chef de l'État qui indique que leur situation quotidienne doit rester une préoccupation majeure mm-hmm. du gouvernement à travers notamment une mobilisation plus soutenue de mm-hmm. nos missions diplomatiques et consulaires. Madame, si nous yi à l'étranger les mm-hmm. sénégalais na sunu ay consul les lu nekk diplomatie sénégalaise am seen jot di dox ci seen ay yitte di leen toppatoo. saafara seen soxla saafara seen ay soxla. Mm. li jënti seen ay carte d'identité mm-hmm. li jënti seen ay passeport te lépp yemb te am ca na mu war a amee. ci mm-hmm. nan ko gën a soxlawee. Mm-hmm. ñi fi nekkoon daan nañ ci liggéey def nañ lañ ca mën ak ñeneen ñi leen jiitu tous les régimes qui sont passés ont eu à travailler dans ce sens hein il y a eu le régime socialiste. le régime des libéraux ñoom ñëpp ka si nekk def nga ci la nga ci waroon dem. waaye à un moment donné Sénégal amoon nañu benn corps diplomatique bu bu bu bu am gëdd. Mhm. bu am dayo bu am personnalité. Mm. mais à un moment donné aussi xawoon na sooke. parce que dañ dem ba politique politicienne ji dugg ci. Mhm. ñi nga xam ñoom la ñuy yóbbu ci euh, corps diplomatique bi nekk ñoo xam ni bon dañ leen di casé. Mm. loolu nekk tamit du suñu suñu yi nga xamante ne moom lañ faral di am. Ah? tàmm laxisme bi. ci liggéey bi. yéexal procédure yi mom moo top ba liggéey bi def euh, ci ambassade yeeg laajal sénégalais yi nek Italie ak ak France ak feneen ak hmm. de ces choses mais incroyable mm-hmm. ngay gis né ñi mais ki liñ ko dénk xamu mm. parce que dañu top trop politique moo tax politique bu baax bu bari bu baaxul ut say client rek leen kase mam ko sama gaay la donc il faut alors que mbir mi métier la mm-hmm. Donc aujourd'hui, et je pense que ce nouveau régime-là va y travailler davantage, lors le président Abissakou du Conseil des ministres, que nous travailler davantage, et surtout, travailler à leur réinstallation au niveau local. Madame, dimbali len ñu ñibisi mhm. bien nous bien ça veut dire que nous ñu ñëwé investir mhm. ça veut dire que nous ñu Les lépp lu ñu soxla na accessible mhm. parce que Sénégal dañu am un service accessible Wow. plans loo extrait de naissance sax jot fi dafa waay. yaa ngi dégg xale naan dafa xeere wow ko xeere wow léegi na na neex waay. pare dañuy kaas tout le temps fuite dañ naan fii ñi fi am xam-xam duñ fi ne te buñ ñëwee tamit pour mu yomb ci ñoom day xaw a jafe léeg-léeg. mais maam xujja sa gan ba mu ñëw Mandiaye mhm. Fall. bu ñëwee. dinañu leeral. mais ak ñeneen ak yow bu maam xujja bu la waxoon ñaata sénégalais. Mm. xam am na euh, Waaji Diallo Amadou Diallo bu ma juum. DHL. maanaam boo dee wax département stratégique naan patron bi. Mhm. dañ naan sénégalais. ci kaw ak ñeneen ak ñeneen. ak mhm. ci te foo ko on a on te foo ko mhm. imaginer wul dans l' aviation. boo demee Amérique fekk fa sénégalaise buy dawal avion. waaw ak yeneen ak yeneen ak yeneen te fu ne yàlla moo nu baax ñu ngi NASA ñu ngi fépp. waaw mais benn cat la am maanaam da ngay gis boroom xam bu tol ni àdduna. mais moom lii war a doxal ay mbiram benn Baye Assane acteur politique moo moo yore kayit ga moo kaa signé léegi bàyyi Assane moom topp na maam xuja di politique di politique ba maam xuja falu mhm. maam xuja ñëw xëcc ko teg ko ci wetam Baye Assane toj yàq jàng yi yàq mhm. xew wi laax ya tuuru mhm. mbana ya wadd ñu naan waaw mais pourtant liggéeyam la toj taal na kër gi loolu moo nu dal ci fépp ci fu bare moo tax kilifa yi foog ñu ñu ñu rétablir l'orthodoxie dans la façon de servir la nation. Mm. lii président bi woote nag wax dëgg yàlla sëñ bi bu amee na mu ko woote. Mm. mu top ko nam ko war topé gaay yi dox ci loolu. ay le premier ministre et ses services le le gouvernement mais mais sénégalais yi ñu bari nak bëgg nañu ñibbi si ñoom professeur mbou bi nekk États-Unis ak ñeneen ak ñeneen ils veulent rentrer. Mm-hmm. mais chat da ci am. chat bu démé nan. xam lan mo di cat. Mm. sénégalais day nekk fële né dama bëgg a bay. Mm-hmm. war a ñëw ñu jox koy suuf. bu buñ ko joxee suuf sa bu tàmbalee boroomi suuf si ñëw ñu ne ah suñuy suufu suufu maam la yu ni mel faw ñu lijjanti ko suuf si ñi nga xam ne am na ay nit yoo xam ne dañoo parce que ay acteurs politiques lañ ñu gàddu ko nanu nangu suuf yooyu bu ñuy nangu nag ki nga xam ne moo gàdd lool moom nañ ko bàyyeek dara ndax daxa yor njaboot te njaboot ga duñu ay fautif njaboot googu mu yor état daf leen di sóor ne bon bu ñu jël lépp gàddul lii nga yem ca nga liggéey ndax njabot gi bu ko gi gis ci bi ñu équité nit affaire équitable sénégalais yi ñëw parce que sénégalais am ñi diaspora Sénégal je donne un exemple la banque nationale populaire du Sénégal on en parle mhm. dans le sens endogène Je mhm. que saa yu xëyee génne cent mm. xam nga la mm. bu millions 39 milliards le mois macha day nekk 500 milliards jëm kaw l' année. 504 milliards. multiplié ko sur 2 ans tu as 1000 milliards 1000 milliards boo ko këppee ci mbay mii au bout de 2 ans bu alors que mën nga ko def sax en simultané ñun dañuy gis suñu bopp. ñu lekk ba suur. foofu la président bi di waxee. Hmm. pour transiter wàllu élevage bi. ok kon yaa ngi ñëw ci deuxième sujet. mooy yow yàgg na. <laughs> baasam daanaan nga. fi mu ne nii xuli. Hmm. dama laa waaxu. waaw waaw tey kañ moom anticiper la sàq mi nga sama laaj njëkk xool bala ngaa ki ma ma jiitu. <laughs> ba paré naan la bu doon football xam li ñu koy woowee. Eh. ako moy moy hmm. drop. da ngay kii bal bi nga and ak mom ci souf ñi football xam ne li ma. dar nga ma wax la ben affaire. <laughs> importation des produits animaliers lu ci bëri. Hmm. di dugg gis nga ak lii dugg Sénégal yow. Hmm. lool di dugg yépp ñun ñu ngi lekk di naan rek mais léeg-léeg mën nañ bañ a xam li ñuy lekk li ñuy naan de. dañuy dañuy day dugg rek. yenn saa sax ñu ne yaa ngi lekk loo xamante ne lislaam nanguwu ko. noo ko xamee dañ la bindal rek. Mhm. da ngay ñëw ñu bindal la produit ne la halal. waaw nga ne non bii c'est halal nga gàddu jël. Mhm. est-ce que wóor na la. est-ce que am na certification internationale bi. léeg-léeg mu am ka. Mhm. mais fekke woo. xamoo mm, mm. waaw bi gën nag mooy bi nga defaral sa bopp. waaw fii meew mi yàqu fii ci dëkk bi. daara jolof ak feneen ak feneen. Mm. meew bu dul jeex ndax lan amuñu mën ko transformer wala fu ñu ko denc mango amuñu entreprise buy defar beurre amuñu entreprise buy defar fromage te pourtant potentiel baa ngi fi te dañ koy consommer waaw te am ay nit yu ko mën lool mhm. nag ñoom Alpha jàll mhm. di spécialiste ci huile ak lu ni mel ci soow rek la ñuy yem malheureusement te mhm. soow mi dañuy woyal nii rek traditionnel mais nag léegi maa ngi gis ay ñoom yi ma ma bañ a def pub boobu maa ngi gis ñenn ñi bi bi maa ngi gis ñenn ñi damaa gaaw a kii léeg-léeg ma kii

l'importance stratégique de l'élevage dans notre politique de souveraineté alimentaire. Il a demandé au ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage et au secrétaire d'État en charge des organisations paysannes de finaliser avec les acteurs de la ou des filières. Hmm. Mhm. secteur Beaucoup de nous, ñuy lekk les ay produits. Mhm. di souvent tabaski bu dañuy importer ay ci dëkk yi ñu wër il te des am nañ am nañ des mi. am sont gi. Il a bay rek ci des. Hmm. bay quand tu as des sénégalais qui dépensent di dougal Sénégal plus de 1500 milliards. Mhm. xaalis di dem ni rek toi lolu banque quand on a des banques qui ont des capitaux banque bi euh, capital 10 milliards nous avons qui ñu banque nationale populaire du Sénégal banque mais xamuluy au delà de ce boobu ah. la banque centrale bi, nga mhm, la de l'Ouest la mhm. parce que banque centrale est mon intérêt mm. intérêt du forcément d'apparence li ñu du forcément yéen africains yi way ñun africains yi c'est CEMAC bee di CEDEAO mhm. Afrique centrale ak BCEAC ñoo beaucoup ki l'ont uuf ba beaucoup, bokk ay ñoo bokk bàjjen ñoo beaucoup tante beaucoup maman, non beaucoup ni nijaay hmm. c'est la même famille ça, Charlemagne moo Charlemagne, Charlemagne tout hmm. mooy Moi, moi seen way jur te kooku nag moom danaan yéen du ngeen avancé nekk leen ci rek ma leen di jàppale as tout ngeen ki fipu hmm. jotna fipp bobu nak Baye Assane dafa melne ne moyul dina am fele ca poste. ah ay way way way way bi yon manako def. way way way way <laughs> say xeeti transition. ah bal au centre. jaw <laughs> oh. oui xam nga kan kan da nuru fimne ni ne ah. laaj ma kan. kan Iniesta. dëggantaan ben ngene mané ne Barça. khulil bu bal bi ñew André Iniesta. wuy ma ci ci ben seconde lay photographier. ngani ma ben seconde xam nga bu ne nii. xamna li xew lepp après ba xamal lu moo def la xalé ba nan coach xalé ba. Hein. tap toxu. kada Messi lekk espace. <laughs> yaay Messi yow laay jox bal bi. ko mais yow eh poste ngaa toj. nga ni ma. nañ fay ñi seen salaire yow. wala mo moo waral Sénégal chaque jour fonction publique rek dañuy am problème salaire. ah parce que gestion ba ba dul bax administration baadul bax tay mu ngi melni rek mu ngi melni rek nga ñew fekk fi 10 personnes. Mhm. non indi 100 personnes yàq nga salaire yi. Mhm. léegi nag cent personnes yi lor dix personnes yi ñoom amuñu ñii amuñu. Hmm. li gën kay mooy cent personnes yi utal foo leen dugal feneen. Mhm. ñii loolu nag mu ngi am ci jamono. il y a cinq ans. Mhm. la poste a été désagrégée. loolu nag la état bi war a état bi war na see poste état bi da see war a gaaw est-ce que am na poste. tous les services là. Orange Money woo. Hmm. Wave woo.

service yëpp état wu Sénégal téye mhm. muy dugaat si ñun ñoo ñuy am. Mm. ñii di am circulation bi jaar yoon ku ñu gis xam ne kii. moto bu dégg nga wax bi. Mhm. kii moto bu normal la moom mu ngeeg mhm. immatriculation sàngam. te day day doxal yoon ci tali bi. laa lay wax nii. waaye yàlla na nga gudd fan. amiin ñu bokk ko yàlla dimbali waaye ñii euh, président PM waa poste fayee koogunu seen doom yi demuñu inscrire. faaw nga dimbali leen ngir yàlla ngir jëmmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bu benn waaye daf ma naan léeg-léeg nag saa yii boo kaa wax nii del toog ci place ñi nga xam ne ñoom la ñu war a fay seen salaire man man ne ko toog fa moo moo di lan mu ne ma danga naan woo woo nu nu nu ngee dee. indi nga kanamu ndeysaan bi de. oui dimbal leen ñi. Hmm. maa ngi xalaat sama bokk yi fa ne ak xarit. sonn hmm. nañu di ces gens souffrent. te seen doom yi jàngeeguñu. metti na. metti na yal na ko yàlla saafara. amiin amiin am naa njortu que ne bu ñu déggee lii. tamit dina dinañu ci def dara. ndax euh, ñu bëgg Sénégal nag yaakaar naa ne ñoo jiite réew mi. Mm-hmm. te wax dëgg neex yàlla dinañ def daal la ca war. Mm-hmm.